waaw xam nga man samay mbir eh, lu aduna bi umpale be ñaar la yor xam nga fi ma damay tëdd yàlla di ma won loo xam ne ñëwagut bokkut ak pettaaw yi nga xam ne ñeenti pettaaw rek bu ma ko ci téyee wax la ci da nga naan déedéet nekkal états-unis wala nga nekk feneen loolu don don de jëy jëla du ay béjjën wala laar mus leen maa gis ma yore béjjën wala laar déedéet xanaa ma yore sama kaamil alquran maanaam tabarakallahu obligé waat ci ne ne billahi wallahi tallahi gis naa nangam te loolu kenn du ko dindi sant naa yàlla julli si ci bi wàllu ki Sall moom ah, na ma ko gisee woon rek maanaam coow li am pale may wër Ablaye Wade pour wax ko ne di nga am coow ba yàlla def ni jox man numéro téléphone Bachirou Diawara ma woo ko ne ko góor gi dina am problème internet laa nekk aduna bi lay wër bu amee problème nag dinaa ko wax ne ko gisoon naa la gëmuma ma bàyyi ko li ma gis ci ci Macky Sall keroog bi ma déggee ñu ne dañoo nangu passeport am ci la mer sama xol bi metti man bi ma xëyee euh, bi ma tëddee ba guddi ci la ma yàlla woon Macky Sall dugg ci pale bi jaare ci bunt bu mag bi wiiri ci ginnaaw dajji buntu Ablaye Wade mi ngi ànd ak keneen ku njool ku am bët ku ñuul moom la àndal kooku moo ko jàppale mu dajji buntu pale bi taxaw na croiser le bara di xaar Ablaye di génn moom ci boppam mu dugg ma ne ah kii mooy doon président président picc la rek bu ñuy téye boobu téye na ko ci loxoom nii ba mu dëgër foofu laa ko tegoon ba ma ko wëree ba gis ko bi ma ko njëkkee gis maa ngi ko gisee ci jumaa laayeen ji bi Chérif Ousseynou Laye génnee àddina mu ñëw di jaala si ànd ak euh, ñoom Pape Samba ak ñi nga xam ne si chef de protocole am ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo ko topp ma fexe ba dugg reyante ñooñu bëgg maa téye mu ne leen bàyyi leen ko ci laa ko ne yow laa gis nga dajji buntu ablaye wadd di di xaar mu génn nga dugg fekk man fi ma gis ablaye wadd dafa toog ci fauteuil bi ne dafa wane ginnaaw loolu la ma ko yàlla wane ma wax ko ma gisaat ñu ñu mel ni dañu koy dañu koy lafañal di damu tànk mi ma laajaat ko ñu ne am na euh, fële audience chiesam ba nekk Saint-Lazare waaw Assane la moo ma fa yóbbu ak Samba Ndiaye mi ñu def tey député ñoo ma fa yóbbu bi ma demee ma jël ñoom seen bopp ñoo jël paroon ne ko kii day daa gént nga doon président mu daan may xool daal di yëngal bopp bi fàttaliku ne moom gisoon na ma léegi bi ñu génnee bi audience bi deexee deexee laa ko ne photo baa ngi fii ci laa ko ne président mu ne ah ma ne ko bés boo doone président na nga def sarax sinon dinañ damm sa tànk keroog laa gëj a gis Macky Sall billahi wallahi tallahi léegi nag ñu toog ay jamono yàlla woon ma am na ku ko jege ku ñëw fii ma génne kaamil ni ma génnee kaamil bii dóor ki sama loxo ne billaahi wallaahi tallaahi gis naa Macky Sall nekk ci biir mbooloo man Selbé Ndom gis naa Macky Sall nekk ci biir mbooloo mi ngi sol tubéy super sang bu ñuul ak chemise u vax billaahi wallaahi tallaahi ah chemise u vax yi nga xam ne dafa am ñaari poche poche gauche poche droite yaa ngi dégg ah, ah, fi loxo yi dafa gàtt chemise u vax yooyu voilà moom laa gis mu sol mu jékki-jékki daanu côté droite billaahi wallahi tallaahi kon maanaam daanu boobu baaxul ci moom baaxul xam nga euh, euh, euh, maanaam diggante xàcc ak dóor yiw yàlla xëj na ci waaye loolu man yàlla won na ma ko gisaat naa tamit billaahi wallahi tallaahi mu ànd ak waa gouvernement ñu ne Macky Sall ngi fii billahi wallahi tallahi alquran la yor man yalla ma gënal lu ma mun ci am ndax liñu am lepp dañ ko fi bay deug gi mom lañu ñu yóbbu suñu bammel nit ki so ma maye ay milliards di du tere ma wax li nga Kugem mom kugemul la ma yalla won ku gëm khairun ku gëmul khairun serigne man la kitabul ne la nangam te du am mais man ci yalla la tibbe li may wax li ma gis ci Macky Sall mbolo la def ànd ànd gouvernement may genn ne ana Macky ñu ne ma dem na japp yoon dem mu ñaar beneen bi ma fekk leen ci ay restaurant luñ may won billahi wallahi tallahi ñoom ñëpp ñu toog moom toog ak gouvernement am soxnaam mi ngi ci biir soxnaam mi ngi ci biir léegi bi ma ñëwee toog ñoom ñëpp ñu gàddu seeni seeni seeni seeni seeni loxo yi kese bàyyi fa bagage bagage yëpp ma récupéré ko te loolu daf maa daloon ci Ablaye billahi wallahi tallahi kuya bo xamne rew mi rew julit la bu len àddina jaral jaral len lo xamne bokku ci sharia al ku ko ci def di nga am jafe-jafe ndax fi yonent bi da fay nek sallallahu alayhi wasallam yalla yàllaa ngi sénégal bu baakha a baax loolu kenn wérante wuko yonent baangi fi li tax manela yonent baangi fi دما تي ام فيرنده يومال يومال لير ناني بالله والله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ميغي سنغال نده في بوني لا اله الا الله دنج لاي فيلو نلا محمد رسول الله تي سنغال جي لا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كون امنا بلان درو انا غيسنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سنغال جي لا غيسي جبريل عليه السلام le 28 septembre 1989 la gis jibril alayhi salam bobu xalaatuma ne dina petta wala may wax آدم adama diko diko deg kon nañu moytu yenn yi bi ma gisee ab Ablaye Wade yore lu lu mu am loo xam ne dañu ko dañu ko jox dañ ko ko jox mu téye ko ci loxo loo xam ne moom waru ko woon a def dama ko nangu muy benn Macky Sall bagage ya fa nekkoon yëpp dama koo ëmb denc ko maa ko doog a wax tey ci leeral point net billahi wallahi watallaahi alquran laatim mu nekk ñaar yoo xam ne maanaam wàllu wàllu dem la kon maanaam baaxul déedéet a ah, diggante xàcc nag ak dóor yow yàlla xëj na ci waaye gisaguma ci Macky Sall loo xam ne maanaam euh, pour deux mille dix neuf ah yàlla nag moo xam yàlla la muy def mën naa def def ba mu yàgg mu dindi waaye man loolu laa gis du dama ko compte du damaa am keneen ku ma war a teg ndax man yaakaaruma kenn ku dul yàlla subhanahu wa taala ak yonent bi ak Serigne Touba Mbakke sama wasila sama yaakaar tey ak ëllëg ndax ragal péete day xañe wërsëg man Serigne Touba mooy sama Serigne mooy sama wasila aw ma beneen Serigne ci àddina ku dul Serigne Touba maa toog ca barabam ba ne ko Mbakke aslamtu nafsi xaw ma sax lu ma ko wax loo mu ne ma udduxul te ku xam udduxul mooy dugg sil kon sant naa yàlla jul ci yonent bi sant Serigne Touba sama wasila ndax tey ginnaaw yàlla yonent bi fu ma toll rek Cheikhul Khadim ma ma ko defal. Vous m'avez musique bu neex ñuy wax vérité ma déglu Luc c'est mon frère Vous m'avez information saut ou information choc madame dem